asalaamaaleykum waa Codice della Strada uh, ñu ñëwaat indi beneen catégorie patente muy patente di categoria A2 waaw xam naa nag du ma dugg ci détails yi ci liir li lépp du ko expliquer parce que day bari mais dañuy dem directement ci quiz yi bu ko defee uh, ñu guadagnare tempo mu ñëwee ci demande yi nga xam ne moo jëm ci wàllu patente A2 uh, demande yaa ngi nii vero yi ak ak falso yi La prima domanda mooy con la patente di categoria A2 si possono condurre i motocicli con o senza carrozzetta mu ne patente A2 boo ko amee mën ngaa dawal motocicli yi nga xamante ni euh, am na carrozzetta wala amul carrozzetta bu mu ci mën a doon mën nga ko dawal ak patente a na fekk rek puissance am bu mu ëpp cinq kilowatts gis nga moom moo gën a kawe yi ci des. rapporto potenza peso bi li ñuy wax rapporto potenza peso non supérieur à 0,2 kW bu mu dépassé 0,0 0,2 kW kilogramme Perché non siano derivati da una versione dello stesso modello mu ne na fekk rek ñu bañ a jóge ci version boo xam ni ñoo bokk même modèle oltre che euh, sviluppa oltre il doppio del della potenza massima bi nga xam ne day développé lu ëpp lu ëpp double puissance maximum bi loolu mooy demande bu njëkk bi beneen bi ci toppaat vert la tamit comme bii la patente categoria A2 abilita anche alla guida dei veicoli che si possono condurre con la patente con le patenti A1 et m moo féete kaw kon boo amee A2 mën dawal véhicule yi nga xam ne mën na leen dawal ak patente A1 ak AM ndax patente A2 moo leen féete kaw mais boo yoree patente A1 mënoo dawal véhicule yi nga xam ne yëpp mën na leen dawale patente A2 attention kon bii féete kaw rek moom dana mën a dawal véhicule yi nga xam ne ñoo féete suuf la patente di categoria A2 A2 bi nga xam ne moom la ñu nii può essere conseguita da chi ha almeno 18 anni di età moom ki am 18 ans moo ko mën a wuti kon ki am 14 ans AM la mën a am boo demee ba am 16 ans mën ngaa dem wuti A1 boo demee ba nag mën ngaa wuti A2 mu ne la patente di categoria A2 consente al titolare di trasportare un passeggero solo se Il posto del passeggero è previsto sulla carta di circolazione del veicolo mu ne patente à louer day permettre borom titulaire mooy boroom patente bi mu transporter benn passager mu yóbbaale kenn loolu nag mi ngi mën a am rek bu fekkente ni poste kooku bind nañ ko ci librette euh, véhicule bi ngay dawal véhicule bi bu fekkee librette bind nañ ci mën naa yóbbaale kenn bu boobaa mën naa nekk beneen bi mu ne il titolare di patente di categoria à da almeno duyani ki nga xam ne patente à doyam almeno am na deux ans pour conseguir la patente A mu ne mën naa wuti patente A mën naa wuti patente A che abilita alla guida di tutti motocicli bi nga xamante ni dalay permettre nga dawal motocycle yëpp lépp lu tudd motocycle rek man ko dawal ak patente A encaissé à meno di 24 anni même bu fekkee amagul 24 ans sax patente A mooy patente bi gën a mag ci patente A yi boo ko amee man ngaa dawal motocycle yëpp même bu fekkee amoo ko 24 ans beneen bi dafa wax ne il titolare di patente di categoria A2 e, borom patente A2 e, può condurre anche le macchine agricole che rientrano nei limiti di sagoma et di massa dei motoveicoli mën naa dawal machine agricole machine agricole mooy mach auto tracteur yeeg yooyu ne ci tool yi boo xamante ni dépassé wul limite de sagoma mooy ni waaw ab motovéhicule war a bindoo ak pois xam nga véhicule yi ñu ko classé ay catégories dafa am lu ñuy woowee motovéhicule ak yu ñu woowee auto véhicule yi ak ay véhicules yi sans seen sa motoore moto véhicule mooy xeetu moto yi rek moto cyclo ak yooyu euh, ci cyclo motoore boo ne auto véhicule yi nag mooy comme véhicule yi ñu yor ka euh, auto vettura wala camion wala trattore euh, stradale xeetu yooyu véhicule yu mag yooyu yi ci des yëpp nag ay demande false lañ boo ko xoolee ni ay false la